nga xam ne yore na maanaa fi'lu ci côté te nanguwut atté fi'lu benn côté ismu la benn côté fi'lu la ñu for boole ñaari tur yëpp tuddee ko ismul fi'lu wal ismu tur in naaba ndem wuutu naa lil fi'li ci fi'lu bilaa qabuli wasmil fi'li ci lu dul nangu melo fi'lu in jala feeñ na lil fi'li ñeel maana fi'lu <clears throat> maanaam dañ koy tuddee ismu fi'lu ismu bu fekkee dafa wuutu fi'lu ni ki ay haata ismu fi'lu maadi la di firi sori na mook fi'lu maadi baxuta sori na benn la waaye nanguut xat gi fi'lu maadi nangu woy mu firi ajabu danaa yéemu نانغو تين التنفيذ بفعل المضارع من نانغو صح نوبل في فعل أمر معنا أسكت معنا فعل أمر هاي نانغو يا المخاطب دوغتي كون موجود من فعله هاي نانغو ملا فعله دوغتي ما ندر جاي فعله سوغ فعل لورو مملي تدي اسم الفعل إن جلا فعل الفعل يدوكو تدي اسم الفعل نقول كثير نقول وروده أقرتم للفعل يلف لفعل الأمر يلف فعل الأمر كسر برنا اسم فعل الأمر موجن بري ونظر نيونا المدارع يلف فعل المدارع وماجن أجمادي اسم فعل المدارع اسم فعل الماجي بروت ويجي خم مثال اسم فعل الأمر ميسا نوبل أنا أسكت نوبل ما فقل آمين ننقل استجب daraaki maanaam adrik jotal dégg nga duunaka maanaam xus jëlal xayya hal maa firi gaaw sil wala jublu jublu sil wala nangul yëpp mën na koo firi balha muy firi utruk bàyyil summa xasbuka muy firi doylul waqat muy firi ak waqat waqat ñaar yooyu yëpp xasbu doy na lay firi دينغ رويدا مفيدة فلنك مع مكانك عندك سخل تب سخل بين بلاس دينغ مكانك مو سخل فوفرك عليك تقول عليكم تقولين إليك مفيد صرل مع أمامك في أماسل تقدم إيه اسم فعل أمر الله yëpp ay ismu fiil amr la wal fiilu fiilu min asmaahi bokk na ci ay turam faali faali darañ ko tëgg mu yore maanaa ismu fiil misaaluhu misaal bu mooy taraaki bàyyil ma ànd zaali ànd ak wàcc sil ca xare ba danañ ko tëgg min kulli fiilin ci bépp fiilu tam boo xam ne mat na du kaan ak mbokk mi fiilu taam la di tasarrufin gi waram ak sarf goo xam ne nangu na so nangu na soppeeku axruf du feenu jaamit axrufu waaye xarafam sulaasi du ñett lañ sulaasi la ëpput ko fal taqtafi na nga xenc bépp sulaasi boo xam ne nangu naa soppeeku di feenu taam ba ji mat nekkul feenu naaqis maanaam bokkut ci kaanaak mbokk mi am na waasix yi yi folle atte mubtada xabar يعني هو من قوة قفا عالم واسم في الأمر ضرب ضرابي دورا نزالي واتشال تراكي تركة نزالي نزل الجوية جلاسي يويب خياس لال بيب سلاسي من يكون تقف عالي من يك أمر أفن أفن في أتدجرو دناخت هي هاتا أفن في اسم فعل مدار ولا هيهات صار اسم الفعل الماضي له وي مشي دنايمو اسم الفعل المضارع له هاي مو اسم الفعل الماضي وفين فعل اسم الفعل المضارع له شتان تقلقونا كو اسم الفعل الماضي له أوه دنا مو مترلو كو اسم الفعل المضارع له واهن دنايمو كو اسم الفعل المضارع له وكذا نكون وشكانا ولا وشكانا يبمن عليك مفي قاونا هو واسمه فعل ماضي له أفن أقوي أقوه أقواهن اسم فعل مضارع له هيهات الشطانة أقوشكانة اسم فعل ماضي له اسمه <coughs> باب أسماء أسماء الأصوات لما يبنت بي جانجلي ترو كدو jeexal na ci ismu fi'lu mu ñëw ci tur yi kàddu yi farof dana ko am léeg-léeg léegi booy booy dàq fas ali ngay wax ali boo koy arrêté nga ne kor yooyu mooy ismu fi'lu ismu kàddu la su ma ismu sawtin topp ismu kàddu qad ataa dikk na nawaayi di ñaari xeet ma masala la misaal na ismul fi'li ismu fi'lu doona may niñ ci lu dul nar dafay ñëw mel ni ismu fi'l comme ji ji eh, kooku misaal la eh, ci booy xoo ay gëlëm pour ñu naan nga leen ji ji kooku mu ngi mel ni ab fi'l mu mel ni dikkal ak adas booy xoo baax la wala fas adas adas booy baax la wala way dàq gëlëm moom la waa ji wax yaa an yaa kii kon béy yaa anzu hada shajarun wa maun aaytu law yanfauni l ayaau <laughs> ayaa masdara aada aa kuy woo gëlëm la kii béy kaza nako noonu xaaxaa dinañ ko dàqee mbaam wax ne dinañ ko dàqee gëlëm ma de xiihaa kon ji adas a ak xaa yooyu ismu sawt la waaye dafa mel ni min zaaka bokk nañ ci yooyu maanaam yi bokk nañ ci yi nga xam ne ñoo feelu dañoo xaw a niroo qad awdaxtu leeral naa ko idaaxal ak leeral ñaareel anaan bu moyen mooy u xakaa la nettali sawtan kaddu ke misli xaaq kooku kaddu baaxañ la nettali ne ko da ngay woo da ngay dàq gëlëm ak nangam waaye kaddu baaxañ xam nga gëlëm am na nu ñu koy dàqee béy ak yu demee noonu loolu mooy ismu sawt waaye booy nettali kaddu it xaaq muy kaddu baaxañ ak xab ko kaddu jaasi la wa taq kaddu doj la taaq li sowti at bi ñeel na sawtu mm, jaase yaa ji dóor taaq ba tey kaddu jaase la kon kaddu lay nettali lan mooy ismu sawt <clears throat> su ko defee foofu la ci yem muy jàngal baabu inraab bu mudaaroo bunt bi jàngal inraab fi'lu mudaaroo mudaaroo fi'lu mudaaroo mujarradun bu aji raf la min jaazimin ci aji jazam wa naasibin ak aji nasab yorfon danañ ko rafaa indal alimi ci képp ku xam fi'lu mudaaroo la koy rafaa maanaa la mooy raf la gim raf la ci xarfu nasab ak xarfu jazam bu dee xamul xarfu nasab xamul xarfu jazam dafay war a rafaa buy nasab nag dafay fekk xarfu nasab dugg ci moo tax mu ne insib na nga ko nasab moom fi'lu mudaari bi an ci an an dafay ne sa fi'lu mudaari ne ko ne ko ni ko uriidu dama bëgg an taktuba nga bind an googu dafay ne sa fi'lu fi'lu mudaari an xarfu masdarin wa nasbin تكتب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أك لن لن تمد فعل نصب فعل مضارع وهي مستقبل له lan yazhaba du dem arrajulu góor gi yazhaba fi'l mudaari lan xarfu nasbin wala nga ne xarfu nafin wa nasbin wa istiqbalin xarfu dàq la xarfu nasab la xarfu lu muy nasab luy ñëw la yazhaba fi'l mudaari bu nasab lan ak izan moom dafay nasab fi'l mudaari waaye si ñetti sart mooy mu nekk si njëlbeenu tontu bi ak fi'l bi ñëw gannaaw nekk mm, mustaqbal luy ñëw ci kanam. diggante mu fexlu bu dara dox lu mooy ngëñ loolu yàgg nañ ko jàngale hmm, xarfu tontu la nag ku wax ne sa sa azuru ko dinaa la ko izan ukri makka gis nga ñëw na ci commencement tont bi fexlu boobu mustaqbal la ndax waa ji ziyaare gul la sax kon teral gi ci kanam la diggante mu fexlu bi dara doxut ci bu ci ngëñ doxoon du ko yàq nga ne ko izan wallahi ukri makka ngay wax su fekkee nekkul ci ci commencement jawaab bi mu ne la sa azooru ko dinaa la ziyaare nga ne ko yaa Muhammadu izan ukrimuka ngay wax parce que yaa um Muhammad nga njëkkee tontu ga bu fekkee da ngaa doxalee diggante izan gaag fi'il bi leneen it nekk mu ne sa azooru ko dinaa la ziyaare ko izan yaa Muhammadu ukrimuka ngay wax parce que doxale nga fa yaa Muhammadu eh, dégg kon ñetti sart yooyu mooy nekk si commencement tontu bi bu dee fexeel bi xaadir la wax ne la <clears throat> maa ngi fii ci barab sàngam nga weddi ko mu wax mu jox la preuve nga ne ko isan tasduqa tasduqu ngay wax isan tasduqu kon wax nga dëgg <laughs> isan tasduqu ngay wax parce que ba mu la joxee preuve da nga ko wax na dëgg kon dëgg googu loolu xaadir la isan tasduqu ngay wax. parce que fenlu bi nekkul mustaqbal ñetti saatu yooyu daal bu dajee mooy ism gi nekk saddul jawaab bi fenlu bi nekk mustaqbal diggante ma fenlu bi bu ci dara dox lu may saatu yooyu bu dajee dafay nasab fenlu mu daaru idan ukrimaka ak kay dafay nasab fenlu mu daaru waaye kay foofu laamu taalil jiitu ko eh, eh, nekk jiitu dikk li kay ataallama wala bu fa laam amul it nga nattale ko fa jiitu dikk kay ataallama maanaa li kay ataallama su fekkee natuloo falaam su boobaa an moo ko nasab jiitu kay ataallama boo jàppee ne amul laam natuloo ko fa su boobaa an guñ nëbbu nëbbu gu war gannaaw kay moo ko nasab maanaam kay an ataallama la waaye dañu nëbbu an gi foofu yii dañu nasab fen an ci lu an lan idan kay dañuy sab fenn mu daara direct na boo ci an waaye kayna nag wax naa la sarti ak isan na bu an in jëraa na fi sitti ci juróom-benn am na juróom-benn yoo xam ni dañuy ne sab fenn mu daara waaye nag gannaaw an wax naa la eh, moom la jàngal ne xatta di xatta aw ak aw ashbaaha goo xam ne niru na ko parce que awi da yore maanaa ilaa wala illaa ak laamu kay ak laamu kay ma laamin joxdi ànd ak laamu joxdi mooy laamul laama laama amul benn yeddaange ak jawaabu naa tontu bil faa yi ci faa bil waayu la waaw yooyu ñooy juróom nga xam ne dañuy sa fenn waaye gannaaw gannaaw an بالنبو بإذن يكون حتى حتى لا فين نزل فعل مضارع أن زين لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى حتى عرف غاية وجر يرجع في المدارة منصوب بأن مدمرة وجوبا بعد حتى كن أن نبو ما نصب يرجع حتى أن يرجع له حتى ما إلى لك moo tax mu ne aw da koo da niru dégg <coughs> kon xataa dafay nasab fiil mudaari waaye nag du moom moo ko nasab direct an guñ na bu gannaaw xataa moom moo ko nasab awit noonu la mel aw dafa yore maanaa ilaa wala maanaa illa su fekkee li ñëw gannaaw aw aw dafay jeex benn yoon illa la yore maanaam mën nga ko def léegi-léegi su fekkee lu ñëw gannaaw aw nag nànk-nànk la su boobaa maanaam lay lay yore moom aw niki e, la qutulan na danaa rey alkaafira yéeféer bi aw yuslima yéeféer mën naa jibul léegi-léegi kon illa an yuslima la aw an yuslima la foofu maanaam illa la lu mu jébbalu aw gi maana illaa lu yore aw xarfu atf rek yuslima fi'lu mudaari mansuubun bi an mudmaratin wujuuban ba'da an aw an yuslima rek aw gi xarfu atf rek la su fekkee rek ñëw gannaaw aw gi foo mu diir mu diire ni ki la alzamannaka danaa taxaw ak aw taqdiyani ba may fayee xaqi mm, déedéet la axdumannaka danaa la liggéeyal aw tanaala ba am أو أنا على بما أمر دا كسن جرمالي جرمالي بدون خير خير أمكو كوك إلى أن أنا على أو أن أنا على أو جو حرف عن فلة مو نصف في المدار بودي أنا على هي يا خنا يا جنكو جنغ أو أنا لا يوان أشبه نيرنا كنيرنا حتى نخل ليه مير مانا مانا إلى مم أو <clears throat> ولا مكي أغلى مكي يدكوت دلا متعليل muy laam gi wane li tax ngay def jalastu toog naa li astariha li an astariha la moom nag an gi mën naa feeñ yeneen yëpp an gi dafa war a nëbb an gi dafa feeñ mu daal waaye laamu taalil moom an gi mën naa feeñ jalastu li astariha li an astariha man ngaa li an astariha wala li astariha waaye daal an gi moo na sa feeñ bi du laam gi maanaam jox di ànd ak laamul laamul jox di laamul juxu laamul juxuut la ñuy wax mooy laam ak dàq rek dafay nasab fi'l mudaari waaye an giñ na bu gannaaw laam googu moo ko moo ko nasab moom nag toujours kaana daf koy jiitu guñ dàq moo xam mudaari la wala am wala maadi la maa kaana allahu li yu'adibahum lam yakun illaahu li yaxfira lahum hmm. ليعذبهم جو اي تسان لي لان يعذبهم أي ان غي دافاي نبوت دو مانا فعل ما كان الله ليعذبهم اي لان يعذبهم لا وانا انا وحنا نيات الله وفوصا وحنا أه حتى او لا مكي لا مجهلي اكيسبهم وفكنت لو فرق nattaloo fa laam waaw kay ci xatta aw laamu kay laamul joxut ak kay ci boppam boo fa nattalowut laam bu dee kay rek kooku an moo nasab fen mu daara guñ na bu gu war yooyu yëpp nag gannaaw laamu taalil rek mooy laamu kay lay an gi feeñ mën naa feeñ mën naa nëbb waaye yeneen yëpp an gi dañ ko kon juróom benn la wax waaye juróom ñaar la maanaam mm, la ko def juróom-ñaar mooy mm, xatta aw laamu kay laamu juhur ak kay ci boppam boo fa nattalawut boo fa nattalawut laam ak jawaabu bil fa ak jawaab bil waaw yooyu ñoo bil <clears throat> fa jawaabu naa suñu tontu bil fa ci fa aw bil waaw wala waaw mooy faaw sababiya wala waawu maaya fu kenn ka mën a dugg rek keneen ka mën na faa dugg faaw sababiya wala waawu maaya dañu ne sa felu mu daaro waaw guy tekki ànd wala faa guy tekki sabab yooyu nag balaa ñoo sa felu mu daaro <clears throat> ah eh, faw benn ci juróom-ñeent jiitu ko moom la dajale ci woy wi ne min baadi ardin gannaaw ard ard mooy sàkk goo xam ne dafa ànd ak nooy inda kulli raawin ci képp kuy solo taxdiirun ak gannaaw ñaax mooy sax gu ànd ak dëgëral aw tamanin wala mbébét ard moom la wax ne ala tanzila ala tanzilu indana fa nukrima fa nukrimaka gis nga fa an nukrimaka la waaye an gi du feeñ wala ma nga wax wa nukrimaka ànd ak ñu teral la kooku ardu la laaj gu laaj gu ànd ak mooy la moom la bayt wax yabna alkiraami alaa tadnu fa tubu sira ma qad xaddasuuka fama ra in kaman samia fa tubu sira ay fa an tubu sira man nga fa dugal waawi wa tubu sira <clears throat> taxdiidun mooy eh, ñaax du dëgër tey la goo xam دفعت عندك دقر هلا تدخل فنكلمك ناخذ دوغو هلا لي عندك ناخذ دوغو نيو حق يو داني ساكو سي مومو دوغو واي ساكو دفع عندك اك دقر فنكلمك ولا ونكلمك يا باهنا او تمني ولا مبيت فوم ببل جيتوكو نيك يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فافوز فاغو فاوسو بيرا waaw mën ngaa yor bu doon alquran mën ngaa woo afuusa boo ko doon irab nag dana alfaafaawu sababiya rek la afuusa fi'l mudaari mansuubun bi an mudmaratan wujuban ba'da faawu sababiya wala nga ne alwaaw waawul maiya rek waaw ànd ak la afuusa fi'l mudaari mansuubun bi an mudmaratan wujuban ba'da waaw maiya istifhaam wala laajte daf koy jiitu fahal lanaa min shufa'aa ndax am nañ ñu yaram mu fa yashfa'u يشفعون له وهذا يكون نسب من كل نسب يوم حذف منه فيشفعون بلد على القرآن من قال ويشفعون كل كل شيء كجيتو أمر الورد يقول جيتو كو دينو نك إدرب عبدك فيستقيم أي فأن يستقيم من قال هو يستقيم بتي دعان ولا نيان جيتو كربي غفر لي على جيجر مفاد خل الجنة أي ولا بقوا أدخل الجنة منانك nafin wala dàq jiitu ko laa yuqda alayhim duñ leen doggali fa yamutu yamutu dafa nasab bi xasab man ngaa wax wa yamutu wa wala tere jiitu ko ni ki laa tadrib bul dóor zawjataka sa soxna fa tandama kon nga rëccu man ngaa wax wa tandama ànd ak nga rëccu saa miin kon yii ñooy jiitu waaw maa wala faaw sababiya pour moom nasab fenn mu daaroo gannaaw an guñ nëbb <clears throat> shaacir bi boole ci woy mur wadu wanha wasal waarid li xaddihimu tamanna warju kazaka nafyu qad kamula amru mooy digle wala ñaan wala tere wala laaj wala gaaral mooy sàkku gu ànd ak nooy wala ñaax mooy sàkku gu ànd ak dëgër wala mbébét wala yaakaar wala dàq comme noonu ñu ko misaal bu defee yow ñooy ne sax fenn mu daara mu ñëw ci <clears throat> yi nga xam ne nii mooy jësam fenn mudaaroo jawaazimul afaali yi jësam fenlu yi sittata ashara fukk ak juróom benn la jaazimu fenli waaxidin lay jësam benn fenlu <clears throat> zukkira tudd nañ ko bi lam ci lam lam benn fenlu mudaaroo lay jësam dafay changé maanaam mudaaroo bi def ko maanaam maadi lam yaktub bindut lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin ngay wax xarfu nafyi la xarfu dàq xarfu jazm xarfu changé maanaam mudaaru def ko maadi yaktub fi'lu mudaaru majzumun bi lam lam yaktub lam yaktub bind ak laami du'a laam laam ak ñaan moog laamu amru benn la rek waaye su fekkee dafa jógee ci ku suufee dem ci ku màgg kooku ñaan lañ koy ñaan lañ koy tuddee ndiki li yaqdi alayna rabbuk nañu sa borom doggal laam googu laamu du'a la noonu la nga koy irabe yaqdi fi'l mudaari buñ jazme laamu du'a majzuum bi laamu du'a wa alaamatu jazmi xasful yaa la ko mandagaa ji mooy xasaf yaa <coughs> kooku laamu amru rek waaye dafa jugee ci ku suufi dem ci ku màgg ñu tuddee ko laamu du'a ak al amru laamu amru dégg nga eh, li taxfir boobu ñaan la li yunfiq zu saatin dafay digle laam amru mooy ku kawe digal ku suufi laam gi laamu amru rek nga yunfiq fee mu daara gu jisme laamu amru <coughs> comme nañ doon arabe rek alamma ak alamma alamma nag man nga wax ne lamma la rek waaw eh, lammaa la guñ jiit guñ yokk xamsa du taqrir xamsa guy guy leeral di dara alamma oxsin ilayka xanaa rafetagu rafetaguma la rafetaguma ba léegi jëmee ci yow rafetaguma ñu koy waxati ilayka ba léegi rafetaluma jëm ci yow lamma rek gi xamsa du taqrir la lamma xarfu nafin wa jismin wa qalbin ngay wax xarfu la xarfu jism ak sens mu daaro mi def ko maari ba ci jamono bu teew lamma dafay dàq ba ci jamono bu teew lamma yaktub mooy ba léegi bindagut ba léegi nii bokkut ak lam lam moom li paase rek lay dàq alam am alif gi nag am satu taqrir rek la pour leeral mbir mi dégg maa laa ànd ak laa fi nax ci tere laa guy tere dafay jisam fee mu daara laa tak tubbul bind bokkut ak laa goo xam ni dafay dàq laa yëg tubb du bind wala laa tak tubb doo bind kooku du jësam wa duha ak laam ak ñaan mooy <clears throat> laam goo xam ne dafay ñaan mm-hmm. déedéet laa laa ñaan ko laay bëgg wax laa ak ñaan eh, laa googu bu jógee ci ku màgg ñëw ci ku suufe laa ak tere dañ koy tuddee bu jógee si ku suuf yi dem ci ci ku màgg nag laa ñaan lañ koy tuddee ñaari benn la rek dégg laa tu axis na bu ñu jàppee laa gi laa duwaa iya nga koy tuddee ba laa annaahiya la moom nga koy tu axis feenu mu daaro bu ñu jësamee laa mu duwaa iya <clears throat> wala maa ak lamma lam rek waaye moom dafay dàq ba si jamono bu teew wala maa yaalim it xamagul allahu yàlla wala boog wala maa yaktub lamma yaktub يعني لما مغلم بين حرف نفي وجزم وقلب وغي وغي سانزير حرف نفي وجزم وقلب ألم ما ينون الجرابي ألم نك ألم ما رنا أم ألم همزة ألم للتقرير ألم تمد ألم للتقرير ألم دفنا عندي عندي كده امتسلا نغطبو يورني النحوي ده ين يزم بن فعله يا كنا ألم أم عندي وكل لم على عندي لم أقلام الدعاء أقلام الأمر أقلام ما أقلا أقلا قيتر لا ناهية أقلا الدعاء يا وعندو ألم ألم تربوك ألم نشرح ألم مغلم بين الله ويحمد لك أمزل التقرير الله يوين يجي بين فعل مدارو من التجمو dana jësam fin danga jësam finle ñaari finlu yu sama dañ tuddee asaani bu ñaareel ba jawaabu chart jawaabu chart wa ak jëza chart yaa faani aji jeex ji maanaam am na yu ñaari finlu bu njëkk bi di finlu chart bu ñaareel bi di jawaabu ak jëza uhu maanaam finlu bu njëkk bi mooy tax bu ñaareel am bokk na ci in كوك مو حرف له أملا مثال إيه؟ إن يقوم زيدا يقوم عمر زيد بوجيجي عمر دنجو إن حرف شرط الجازم يجم فعلين دفع يجم نعرف فعل الأول فعل شرط بنجك فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه بنجار بجوابه شرط الجزاؤه ndax taxawak zeydu mooy tax amru taxaw kook in xarf la ñoom حرف شرط لا إن أجزمان يوم نال نوتي حرف يرن يجسيب أي اسم له ومتى أجمتى مومد اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاه وهنا إن أجزمان يوم حرف يوم جاء حرف شرط جازم يرن يجيب اسم شرط جازم لا آه. آه. متى نك لنا في محل النصب ظرف زماني فين يكبر النصب بظرف زمان متى جمعنا ريتك متى تقوم جمعنا يتخوي أقوم ذنا تخو اسم شرط جازم يجم فعلا أول فعل شرط وثاني جواب وجزاه وهي في محل النصب ظرف زمان <clears throat> متى تقوم أقوم تقوم أقوم يفعل مدارو جزم متى أك إزما كوكيد وحنا حرفو شرط ده موك موك إن موك بوك يعني أي حرف لين هذا مثال مثلا مثال بيت بو قليلة يا ومنك وقت نونو فلا na misal wa innaka iz ma ta'ti ma anta amirun bihi so dikkale da yake iz ma harfu shartin jazim ne الأول فعل الشرط وثاني جوابه وجزاء إذ ما تأتي تأتي فعل مدار مجزوم بإذ ما إذ ما تأتي, ما أنت آمر به يعني يعني. بتلف من إياه تأمر آتيا تقول في تلف ما جواب تلف ما جواب شرط آه تلف هو فعل مضارع <clears throat> مجزوم باسمه ولا متجزم حذف يا ما جواب الشرط جيم وقسم إجماع رفع عن جزم التأتي التلفي وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي إذ ما وحرف شرط من كويف إرابي أيا أك أيو <coughs> مؤمن تفاجز من ñaari فعل مدارو waaw comme ayyan ma tad'u falahu al-asmaa'ul ismu shartin jaazimin maf'uulun muqaddam la tad'u fi'lun mudaari'un majzuumun bi ay mm, mm, dégg nga dégg nga mm, ismu shartin jaazimin دائما يجزم فعلا أول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه دي مفعول مقدم ماجي زائدة لا ماجي دولة لا تدوم فعل مضارع جزم أي لا أي دي فعل شرط ما نجزم حذف نون أي ما تدوم فعل الأسماء الحسنى ومن جوابي نكون fi'l waaye آه، مبتدا خبر xabar la جواب جسمي jawaabu برب جسمي جواب شرطه ayeen dafay jisam ñaari fiil <clears throat> ak maa dafay jisam ñaari fiil maa nag moom maa ñoo ñoom li xëyri àqil la ayu nag mën naa moom mën naa tekki lu ne mën naa tekki jamono mën naa tekki barab mën naa tekki xaal lépp ça dépend fi ko dugal maa li xëyri àqil la wa maa tafalu min xëyrin yaalamullah wa maa tafalu lu ngeen def min xëyrin ci lu baax yaalamullah bu defee maa ismu mawsul la yore maanaa ladi المقول فيه الإعراب مع اسم الشرط الجازم يجزم فعلين أول فعل الشرط وثاني جوابه وجزاؤه في محل نصب مفعول به وما تفعلوا قوم مفعول به تفعل فعل مضارع <coughs> لأنه مجزوم بما ولا ملتزم بحذف يعلم هو اه، اه، اه، جواب شرط به ما تفعلوا من خير يعلم الله gis nga jazam na ñaari fi'l moom màgg من ak man man yaqum aqum léegi man ismu shart يلزم فعلين الأول فعل الشرط وثاني الجواب وجزاه من على السكون في محل رفي مبتدأ من كان يقوم فعل شر أقوم جواب شر أك مهما مهما مقادر أيو أيو لا أخن أيو أخن إنك فلو يا كنالي آه بري ما جمون إرابك أيوك أيوك مم لا إراب لي بي بي أيانا لن وخ <laughs> كن ما ما كجاكرون أيان لا وخ فك أيان لا وخ أيان ايانا كوك مو متا نيويم ظرف زمان لن ني جي غلو ندخ فمن لي نيو خن ايانا ظرف مكان لا وهي مو ظرف زمان لا كون ني غي رابي متا رين كو رابي حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه في محل نصب ظرف مكان دول నుంచి يقولوا بحق لير الله أيوة مونينكو مهما أك مهما موم موك ما نيويم لن يسم نياري فعل مضارع مهما أك ما نيو نيوم نيار نيويم لن يسم نياري فعل مضارع أنا مثالم صح مم. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي مهما تكن وكن إعراب مهما كوكو اسم شرط له جازم كما يجزم فعلين أول فعل شرط وثاني جزاؤه وجزاؤه ومن يرى السكون في محل في مبتدا تكن أك تعلم يوم فعل شرط والجواب شرط به <clears throat> أين كوكو برب يديك أين تجلس أجلس آه، أين اسم الشرط جازم يجزم فعلين أول فعل شرط وثاني جواب وجزاؤه في محل نسب ظرف الزمان ظرف العمومية مم أين أين تجلس أجلس يعني إلى أنا النعيد نون أنها تقوم أقوم فوتها ومتها ومزار ظرف مكان له أنها اسم شرط جازم يجزم فعلا أو فعل شرط وثاني جواب وجزاءه في محل نصب ظرف مكان حيث ما يت نون نعم لا حيثما تستقيم فهو من صح يقدر لك الله دار دوغر النجاح الأدمي ما من ظرف <coughs> ثم حيث ما موك موك موك موك أين ak anna ak ayyaana ñooyam ñoom ay barab lañu lañuy tekk dégg mm-hmm. su ko jisam kayfa maa nag moom lil xaal la mm, kayfa la moom la misaal kayfa maa tasna asna misluhu xaal boo mën a jëflanteeg man rek मुझे فلان تجي ونون كيف ما تصنع أصنع مثله مملي الحالة <clears throat> اسم الشرط الجازم مبني على السكون في محل نصب حالة من كيف ما حيث ما لم اسم الشرط الجازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان ظرف مكان لا يبقى غير في كيف ما الحالة ثم إذا طف إذا في الشعر شوي خاصة دون إذا ci kuufi yoon yi dafay jisam ñaari fenlu waaye bu dee ci way bu nag ci bu ci basri yoon yi moom dañ naan daruratu chenre loru way moo ko tax mu jësam ko istaxni ma axnaak rabbuka bi xinaa fegee laang lay doylu loore na nga doylu wa ida tusibka xasaasatun fatajamali wa ida tusibka xasaasatun fatajamali إذا إذا المشتت جاسم مبني على السكون في محل نصب لظرف زمان سايولو جمعنا يعني تسيب كوكو في المدار ممن جزم إذا ما فين شرط خصاصة فاعل تجملي نغرفة المي ولا فتحملي كوكو فاعل ما واقع في جواب شرط تحمل في الأمر مبني على السكون فاعل بأنت جملة بو جواب شرط وإذا ممشي ويرك لي دوريكي anam yi jaaroon nañ ci ci ajurum ya e, taxawoon ci incha allah ko bëgg mën ngaa delluwaat foofu lii daal dañuy gisam ñaari fexlu mu daaro fara yi na nga antik ma aw daxtu ma leeral ku nekkal sa xasri ndi borom ak takk maanaam na nga fexe ba mokkal li nga xam ne e, leeral na ko mu ne jumla ci mooy buntu jumla alati yi nga xam ne laa maxala déet barab laa xadi ku ñeel min irab ci irab wa jumlatun jumla maanaa ba wa jumlatun jumla maanaa ba su wuutuwul anaa ci moom mujaradun ni rafleel laysa nekkul lahaa di ko ñeel al i'raabu i'raab naxwa comme tas'adu yi da nga texe tas'adu da nga texe baatu jumla jumla goo xam ne da nga ko sosee wax ji kooku mm, dégg nga <coughs> mujarad mënu ko mënu ko wut xam nga boo زيدا يقوم معنا قائما لا يقوم جو مجرب النقود منك قائما كن حال رأيت رجلا يقوم بتي قائما لا منك نعوت رجلا أي لو خلنا مجرد منقود كوك جملة وأمر برب تعالى مم لا مثال لك نكذات الاستئناف نك جملة جو خمر فصص وخ يقوم زيد كوك من يقوم يقوم رجلا درم منقود زيد قائم درم منقود فوق كون جملة وو لا محل لها من الإعراب أمود برب تي إعراب بس كموصوص وحج والمفسر أك جملة بيفري إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم عيسى مؤمن يالله مؤمن آدم فيالا عيسى فيالا مؤمن آدم نمنرو آدم من خلقه من تراب خلقه من تراب جملة جملة جوخم دفعي صوص وخ دفعي فيري جملة تفسير day firi Isa ak Adama luñ niro ko amul barab ci adab yu mel non mu jumlatu silla ak jumla silla jumla silla alladi qama ki nga xamé taxawna qama ko jumla silla la amul barab ci arab jumla bu ñëw nek silla su mawsul amul barab ci arab wal mu'tabarida ak jumla bo xamé ne dañ koo dogale ci digënté jumla yi way noo la qasamun law taalamuuna azim la qasamun azimun la diggante naatu ak manul bi ñu jox doxale ci law taalamoon law taalamoon googu du am bërëb ci irab parce que jumlatu i'tirad la min bayni sadrin tin dana ñëw ci commencement silla ci digg silla wa mukk wa mukk mi ak aji mottali laha ñeel silla ja ni ki wala dina kasabu sayyaati ñu fay ñu fàggu sayya lu ñaawteef wala dina xam nga kasabu sayyaat mooy silla ba وترهقهم ذلة ما له من الله من عاصم ممتل لول ترخ تاني دار لنديكل يا الأمور لول من المسل مدوخل اسنا لذا أوسيات بمثلها ديگنت سلسي أغلقو مطري دوخل نسي جملة اعتراض لذا أوسيات بمثلها لو نعو لو نعو لنك فاي وفر دور أندنا بغد مرية فاكسي وبين المسندين أك ديگنت مسند محللين أجي ديگل لكل برم برمبيتي وفيهن والأيام يعثرن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائحه وفيهن كم خبر مقدم للنوادب من مبتدا مؤخر وفيهن نوادب أمن جيغني <coughs> جويني وبيدي تدعي لباخم لا يمللنه lu baaxam laa yam lal daajatiku mu doxalee diggante xabar bi mu tëraagi wal ayaamu yaasuur na bil fata fan yi dañuy fa kasal sang loolu jumlatu i'tiraadi la doxal na ko diggante musnad maanaam xabar ak mubtadaam wa musnadan ilay ak diggante musnad ilay qaama wa yadribu amran zaydun qaama zaydun rek mu doxale si yadribu qaama yadribu amrun Mm, wala bu yadribu amran zaydun qaama zaydun la mu doxal si yadribu amran dégg nga jumla mu dox si diggante bi diggante mu taraf diggante musnad ilayhi la diggante fi'l ak fa'il la ko la ko doxale dégg nga summa aamili topp aji liggéey maamulihi ak mm, summa aamili topp aji aji liggéey maamuli ak la muy liggéey عاملك معمول انك يعني اسم ان خم ده هو ان ده فين سبب اسم رفع خبر انكن موج ان بين رندك ديجن تعاملك معمول بوب لورا نصب اقل ورا نصب ودخل جملة اعتراضي كأن أسافيها حمامات مصولو كأن أسافيها فمن أي بصم مدخل دخلتنا كأنه وقد أتى حول كميل أثافيها كأن أثافيها ديجنتهم مدخلتي وقد أتى ديجن حول أت كميل بمت ديجنت عامل معمول لا يجف لن يورى جفتهم دخلنا شيء جملة اعتراض نعت ومنعوت ديجنت نعت ومنعوت جلي فين ما لم يكن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لقسم عظيم مدخلتي لو تعلمون وبارح الفنا قلنا وجن وجوابي أكتنتم كم فلا أقسم بمواقع النجوم يلا نجن كتاب وهي بدون إنه القرآن الكريم القرآن جد لا وهي بام جني بام يتون تجن جا تخل نشوف دجن تني أجملة وإنه لقسم الله تعالى من عظيم فوفهم دوغل جملة تبي جملة <coughs> فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى من عظيم دفق دخل ببر دور تون تنجن جا تبي جملة دخل جوجو دخلنا دجن تناطق من البيت لو تعلمونه dégg nga moom ñu wax ne ubaada xalfin gannaaw xilfin gannaaw ngañ wa jawaabi ak tundam kaza naka nii la min benn chartin diggante chart wa jizaan ak fay dana ci ñëw fadiri xamal zaali in yakun ganiyan aw faqiran tontu bu mooy leen falaata tabion hawa mu doxal ci diggante bi in yakun ganiyan aw faqiran falaa oola bihima doxal na loolu ci diggante ba dégg nga su ko defee jumla ay itiraat lay wax ne dana ñëw ci barab ci ci barab yooyu yëpp alhamdulilah antara dana fa ñëw dégg nga mu ne ma daaxaat niirul nag al jumlatu jumla zaatal xaali jumlaay xaal jumlaay intiraat dafa niroog jumla joo xam ne jumlaay xaal la waashbaar xaa niru na ko ayama iskaali bum ci niroo waaye tamayizat ràññeeku na bi xarfi tanfiisin ci xarfu tanfiis xarfu tanfis bu fa duggee rek xamal na jumla i'tiraa la ni ko ni ko waaji waxee wama adri wa sawfa xaalu adri ak qawmun aalu xisrin am nisaa wama adri qawma wa sawfa xaalu adri kooku di jumla i'tiraa la wama adri ak qawmun aalu xisrin am nisaa loolu mooy wax ja waaye wa sawfa xaalu googu mu ci doxale jumla i'tiraa la mais gis nga sawfa tanfis tiinu taswif dugg na fa آه، ولن أجلن لن lan جين ولا duggee noonu تفعلوا fa in مدخل tafalu fa ولن تفعلوا mu doxale لن diggante جملة اعتراض لا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار مدخل الجنة ولن تفعلوا وطلب أكتلب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بلن جمني يا أزل جوك كان لمن لم جوك لما يكون خمي توب نرين waaw ñoom daal jàpp nañ ne seen waa diine la ñuy am dara foofu yàlla doxal na fa qul innal huda hudallah kooku tarab la sàkku nga wax leen ne njub ñu bëgg yàlla balaa muy mottali wax ci wala tuuminu an yuta ahadu misla ma utitum bu leen yaakaar jox kenn lu mel ne leen jox mu ne qul innal huda hudallah la doxale ci diggante bi lu ko defee loolu da ngay xam ne du xaal waaye jumlaay la <clears throat> wal xarni ak lënkale bil faay ci fa ilam xamal an sawfa yaati kulla ma qudira hmm, léegi nag mu doxale si diggante bi fa ilmul mar'i yanfau ilam fa ilmul mar'i yanfau faagu mooy wan ne lii jumlaay i'tiraad la waalaman na nga xam loolu summa huna fii وربك تم مدنا هنا في حدية المجيد تروينت دي حدية المجيد بحسن عون ربنا شرفتك نبرس برم الوحيد كاجويت أبياته أي بيتم أصبتها مويلي باتو أصبتها بو كنت أصبتها دانو جو كتسان سسنف مويلي بيتي إن تعذري بوكو كنت وانفاجرين يا ربي يا صبرم كل مبتدي كيف فيكم جانب bi ahmad ci darajaay ahmad ajalil mursalina ki gën a màgg ci yonent yi xayril baraya ki gën ci mindeef yi ajmaina mboolem seen ak taayina mboolem seen kooku tawkiit la ñoom ñëpp mboolem yonent moo gën ci mindeef yi dégg nga ci darajaam yàlla nga jëriñ ci téere bi képp koy jàng amin su masalaatu topp xewal wasalaam ak mucc sarmada gu aji dappetoo المسمى يا لنك تكين تدي حامد الحامد وأحمد الأحمد وأهدي أن ينم وصحبي أجي صحابة من الأبرار نباخ ما كوفي رفاق نجي جالر بي الليل قدي على النهار تبتك فيك قدي بتك نوتو عن ترقى على مجلسي ونتي بس الله يسلم سكرة في تربي إيه، كما أسلم كتش بسم الله الرحمن الرحيم جاء خلنا الحمد لله رب العالمين إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيب عرف ونشي جان يلا يلا فلكو كم يرمى نم دفكم ويتياب وديو نحل نم بولكو سن ميزان الحسنات منك أي بلايك كر إن يلا دنشل چال جناك إن غرمان الوخم نم طولنا نيه yërmande yàlla yàlla mën na loolu yàlla na ko def yàlla ñu ko defal defal ko bépp jullit defal ko ki taalif téere bi yàlla na yàlla jëriñ ci téere bi ak ci firi mi mboolem kuy door a jàng naxu li ci njub ci yàlla la ñu ngi koy bàkk ba mu gërëm li ci safaan suñ gàtt xam-xam la ñu ngi ñaan ñi ko mën a defar defar ko te nangul ngànt doon jàngale ndax kuy wax mooy jum ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla jégal rëcc rëcc yi lépp luñ ci firi rek xarafu mën a doon yàlla na ko yàlla def muy lu sell ñexel ji moom jooju nga xam ne moom rek moo tax yaa rasulullah yàlla bum neen jëf ci yàlla bum neen yàlla bum yàqu yàlla bum sànku yàlla bu mu sooy yàlla na jëriñ yàlla mën na الإسلام استطعت ما إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته